asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 18 avril deux 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi sunu làmb nag tey fa la ñuy xëy doore ko yëglekaay bi nag tey bi mu xëyee tafaatin la ñu indil tafaatin nag mu nga xëy di wax nee na daal moom li leer ba leer day mu ngay menacé kii nga xam ne nag moo di Ama balde Gris Bordeaux ak bombar ji nee na leen nañu puus aw yoonam ku mu ci fekk dalay nappaaje jàll tafaatin daal loolu la wax nee na li leer ba leer day ñoom ñu may waxal xam nañu li ma leen di wax bu baax a baax nee na doo bombar ji ak kii nga xam ne mooy Ama ñoo la gën a xam li may wax sama yoon bu ma leen ci fekkee ku mu ci mën a doon rek nappaaje laa lay def jéggi la dem sama aw yoon ñu ne ko sa combat ak kii nga xam ne mooy Ama Baldé mu ne mbir ma daal loo ci mën a dégg moom ah fi mu nekk nii di leer ba leer Pape Thialis moom mooy Bombardier moom ngi di Ama nag moom moo xëy di wax lool waaye daa mel ni nag olof na tontu du forox nee na ko da ngay sóob rek yow loolu ngay wax lenn loo ci man amul ndax yow moom jàppal ne doo danser ci man li gën a neex ba neex Ama ne na ko ndoxum galaas yaa ko gën a sedd ci sama kanam loolu mooy waxi Ama Baldé jëmale ci kaw kii nga xam ne moom moo di Tapha Tine ba tey leneen loo xam ne mu ngi ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu lamb kii nga xam ne nag moom moo di lig Nicolai lanu xëy fekk ko fa lig nag mu ngay wax nee na li leer ba leer day rëg-rëg moom bëre bi muy dox di bëre lit simple bi dina xam ne maag moom la ndax nag kasem bi nga xam ne nii moom laa ko fay dinaa ci dagg lii nga xam ne mooy fukki million ndax li muy def waru koo def mu mel ni jamono jooju li waxee loola nag ba kàddoom di daanu estafu li ñi nga xam ne ñoom ñoo di waay rëg-rëg tontu nañ ko ci leewtoo point net lañ ko xamal mooy loolu nga wax manta ne te yow du yaay dogal lool te loolu sax dafa amul maanaam daal weddi nañu kon ñoom waxi lig ni ko laay waaye li leer ba leer nag combat boobu moom di Gris ak Reug Reug moom régularisé nañ ko démb fa nga xam ne mooy ca CNG ba kon li leer ba am mooy le 16 juin la ñuy bëre combat ba fa nga xam ne mooy ca arène national suñu làmb xëy tey ñëw dinu wax loolu leneen loo xam ne nii sunu làmb ñëw na dina ko wax mooy kii nga xam ne nii moom mooy soq soq moom dem la doon def open press am fa nga xam ne mooy ca Pikine waaye soq nee na fi mu nekk nii daa pare ba yegg ci lool nee na Ndandi Fall moom pare naa ngir écrasé ko te bu ñu dajee dina xam ne basi góor dong moo koy bay dinaa ko loo xam ne nii day dina gis bu diwu bëccëg mu mel ni soq nag dem la gën a tàngal yaram wa mooy Ama Baldé xarit ba nga xam ne solo na aw dàllam ñëw ci lii nga xam ne nii moom moo di open press ba moo tax soq daal dem yaram wa tàng na lool lool lool sunu làmb xëy rek ko wax keneen koo xam ne nii moom mu ngay ñëw ca boppam ci fii nga xam ne mooy yëglikaay bi nga xam ne mooy Les ko mooy Balla Gaye numéro 2 Balla day nee na leen leer ba leer am na moment yoo xam ne day dund naa ko ci sama carrière muy moment yoo xam ne difficil na Balla nee na toll woon naa ay temps day li leer ba leer la ma dund maak yàlla dong nga ko xam nee na bëriwoon na sax ay nit yoo xam ne nii dey jàppoon naa ne maag ñoom dara duñu tàqale waaye nee na ba mbir ma mettee ca laa leen gëj gis dañu maa wan ginnaaw Balla daal ñëw na tey waaye nañ ko ndax kañ nga koy bàyyi bàyyal Balla nee na day li leer yaakaarul ne moom dina def ci làmb lu mat ñeen fukki at Balla daal moom mu ngi wax loolu lag dëgër Guiers booy Boy moom nee na loolu moom li leer ba leer nee na mënta ñàkk faw daal dañuy jàppale kii nga xam ne mooy di Lac 2 ngir ma mën a am ndam ci kaw Boy Niang keneen koo xam ne moom combat dañ ko doon négocier te mbir ma taxaw Khalifa ja xëy na di wax ci leese ko ne na ak Bombardier moom ko téye fi mu nekk nii daal ci côté promoteur bi la ñoom moom seen côté lépp pare na leneen loo xam ne tamit yëgu nañ ci leese nag dem ci fii nga xam ne nii ba tey mooy Leewtoo point net ñu ngi fa fekk nag Modou Lo Modou daal waa Leewtoo ñuy xamal ne Modou fi mu nekk nii est-ce que nag moom moom moo war a sauver li nga xam ne moo di Rock Énergie ndax nag Modou dey boo xoolee saison ni mu ko ubbee baaxul dafa ñàkk ñu yaakaar ne laay Pythagore sauvé mbir ya laay ñëw ñàkk jariñu daan ko moo tax waa Leewtoo point net di laaj ndax Modou est-ce que du moom mooy sauvé li nga xam ne nii moom moo di Rock Énergie ba tey ci Leewtoo point net rek ñu fekk fa lii nga xam ne nii mooy benn daje boo xam ne waa direction technique bi yore làmb ji ñoo ko war a def ñu ne nag mu ngay am le samedi le 27 la ñuy def loola ba tey ca Leewtoo TV fekk nañ fa kii nga xam ne nii moo di Luc Nicolaï ba tey mu ngay wax Luc nee na day li leer ba leer nee na ma Babacar jàppal lii maa la ko wax bu nu yeggee ci combat gi di ak Reug Reug di nga gis loo xam ne nii day lu raw la nga gisoon ca Modou ak Balla Gaye wala boog ca diggante Gris Bordeaux ak kii nga xam ne moo doon Balla Gaye Luc moo xëy tey di wax loolu leneen loo xam ne nii moo doon aw tiis te démb mu dal ci kaw làmb muy woy juru bàyyi ma njoon wa nga xam ne démb denc nañ ko fa nga xam ne moo di yof laayeen ca côté maam li maam mu laay mu mel ni bàyyi ma njoon nag ñëwoon na waaye teewoon na waaye itam waa làmb ja ñëwoon nañu gunge si ko ndax nag promoteur ya ak mbër ya ak menacé ya ñëpp ñëwoon nañu jàppale si ko bokk ak moom tiis woowu nga xam ne moo dal ci kawam di woy juróom woowu nga xam ne moo génn àddina ñu koy ñaanalaat rek yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko moo bépp jullit bu mu fekk ci suuf ak bu ko ci fekk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallama addina noonu la baaxoo waaye mbaax dong moo am solo démb ku ñëw Yoff Laayeen di nga xam ne lu waay di def te boole woo ca mbaax yaa ngi perte sa waa Leewtoo leen di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon nañu ak moom léegi si euh, jàngatu si si revue de l'arène bi nu ñëw ak yéen si jàngatu de l'arène bi Babacar maa leen nuyu Euh, Ndeye Coumba maa ngi lay fay sama mag ah maa ngi lay bëgg bu baax a baax naar bu xees di la nuyu di lay ziar di nuyu ñi nga xam ne tamit ñoo ñuy suivre ci Leewtoo TV rek fu ñu mën a nekk si àddina bi xam nga di leen ñaanal jàmm et di ko sàkku ci yéen ci ñoom tey di alxames tombé ak euh, fukki fan ak juróom-ñett si weeru avril wala 18 avril boog comme ni ko tubaab bi waxee waa noonu la demee. ñu ñëw nag si sunu laam sunu laam def na euh, interview bu yaatu ak tafaatin Tafatine daal nee na pare na pour Gris Bordeaux Ama Baldé euh, Bombardier daal pour mu defal leen pour mu defal leen affaire. maanaam pare na pour ku ci jaaru yoona mun na la comme ni mu ko waxee woon. waaw loolu moom yaakaar naa ne su ko waxee du bett kenn ndax li tax du ñu bett mooy bu dee mook Bombardier la revanche boole na leen su dee mook Ama Baldé revanche boole na leen bu dee mook Gris Bordeaux combat jànq la te derby la tamit. yaa ngi dégg kon fi mu nekk nii Tapha li ma gëm wala li ma li ma yëg li li koy li wax loo dafa bëgg a bëre te il mu bëre parce que tamit gëjoon na bëre ca janvier daaw 2018 yaa ngi dégg ñu ngi 2019 boobu dafa daanoon Yékini ngi xaar ba ba tey combat sax suñu digganteem ak kii digganteem ak ka te ñett ñooñu mu cité ay adversaire am lañ waaye est-ce que nappaaje Bombardier dina yombaat bu yoon wala nappaaje Gris Bordeaux ndax bu njeegee dina yomb amaam ne mooy loolu kon jàppal ne daal adversaire yooyu mu wax ay adversaire de taille la ñu ngir moom mais bu ñu ca yeggee nag dañuy toog seetaan ñun xool ndax tafa bu dee Bombardier ndax dina ko mën a nappaaje bu dee ndax dina ko mën a nappaaje ndax bu dee Ama dina ko mën a nappaaje waaye loo ci mën a dégg daal mooy que ni war na am combat Gris Bordeaux war na bëre Tapha Tine war na bëre Bombardier war na bëre Ama Baldé war na bëre ak yeneen mbër yi nga xam ne ñoo ngi fi des te amuñu ay moo xam mbër yu mag yi la wala mbër yu ndaw yi dafa mel du Ama rek moo xam ne euh, dafa mel ni Tapha Tine rek yaramam tàngul Ama Baldé tamit mu ngi si côté bi nee na daal kii di mel ni kii di tafaatin moo gën a sedd sax glace. waaw ci moom ta xam nga tontu forox olof Ndiaye ko wax waaw euh, ta Ama moom bàyyil mu sedd tontu na ko xam le na ne moom Tapha day sóob rek. waaye nag moom moo gën a yomb sax glace ci moom moo gën a sedd glace ci moom waaw moom loolu la jàpp moom Ama Baldé mooy li ma lay wax rek euh, tëkkoonte lay doon mais bu arbitre soufflé ci la li war a am di am ñoom ñaar nag seen ramas dafa neex. revanche Tapha Tine Ama Baldé amul lu ko dàq tey ci làmb parce que li tax mooy Tapha Tine actuellement gëm na ne li ko doon dal ay njuumte la surtout li ko Ama Baldé defoon parce que dafa jàpp ne lu loolu da mu defoon tey la gën a mën a delluwaat bu mu ba ca booy booy ba moo tax Ama tontu ko loolu loolu nag moo lay wan ne actuellement seen combat fi mu nii day promoteur bu ko tëgg non di nga bu neex te revanche bu revanche koo ñor parce que gis nga bawol booli temps yi seen yaram ni mu tàngi gis nga Pikine daaw ni ñu def lamb ji yóbbu roi des bi Ama Baldé jaar fële Papa Sow Boy Niang ak Sa Thiès fële xam nga muy waaw <laughs> ñoo tojate daaw mooy la moo lay wan daal ramas Tafa Ama moom yàlla na am waaw man daal maa ngi koy ñaan amin Babacar nu dem jóge si sunu lamb dem si les échos les échos moom ni ngi dalal euh, la lion de Guédiawaye Balla Gaye muy wax jaar-jaaram nee na amoon ay guddi yoo xam ne taroon na trop ay nit ñi ay nitam yoo xam ne dañu yaakaaroon ay nitam nañu dem nañu ba bàyyi ko Babacar. waaw loolu de li ñu si mën a wax mooy que nii àddina daal li am solo mooy ànd boo gis ndey kumba na yàlla rek tax parce que àddina day neex tey suba mu naqari. yaa ngi dégg li am solo nag tey bu mu fekkee dama dama seq ak ndey kumba Fall ànd naa fexe ànd boobu ñu di ko ànd te yàlla tax su ndey kumba nekkee ci difficulté naa ko gën a jegeñ su nekkee si bànneexam tamit naa ko jegeñ parce que àddina loolu moo fi am moom pour man mooy wàllu doomu aadama yaa ngi dégg ah, loolu bu fekkente ne lu am la nag du lu gën. parce que bu fekkente ne ci ko da ko mbër bi da nga ko toog ngir succès bi muy am succès boobu mënul continuer parce que dina toll moment yoo xam ne euh, sport mooy demee noonu da ngay wàcc ba ci suuf mën a su ci dara day am moo baisse de forme day am ci sport sportif bu ne daf lay arrivé ci sa carrière moo xam basketteur nga footballeur lutteur boxeur comme si mën a doon ñun ñi sax des li ñuy def des nga xëy def benn reportage boo xam ne yow boo ko dégluwaate di nga xam ne tey ji li ma def jaarut ci yoon wala boog li ma def neexul yaa dégg àddina moo tëdd dara àndal ak moom te yàlla tax loolu moo di ab ànd waaye waa ji am na succès rek naa làqutu ci succès boobu waykat bi wala euh, mbërum lamb bi wala footballeur bi mais su mbir ma jeexee mu kii loolu moom gënul daal ngi wax tamit si digganteem ak Lac de na waa waa Géejawaay Lac de Guiers moom ak Boy Niang xam nee na xam nañu euh, Géejawaay daal si ginnaaw Lac de lañuy nekk si lañ koy jàppale daal man. waaw loolu mooy géej jaam na ndox parce pour man loolu moo leen war parce que Lac de doomi Géejawaay la. yaa ngi dégg te mbër bu mag la ci mbër yi la bokk te ki muy bëreel boobu ba tey mu ngi dugg géejawaay di daan kenn mënu ko faa daan kon defe naa loolu bal wax ne géejawaay gépp dañu war ci euh, maanaam c'est force pour ñu boobu di fas yéene bëri ak Lac de kon ñoom géejawaay defe naa loolu defe naa li olof di wax rek na mu ca yebu ca lay doone ku la ca ba max da war a jël moo xam Pikine la moo xam géejawaay daal ku ci ne jàppal ne sa doom jooju di war bés boobu di bëri si jàppal ne bés bu rëy lay bëri si kon nag defe naa ne sa doom ngembu takku jëm ca làmb ja war a yo euh, défendre ab quartier wala population yi la lëm defe naa kon bu ki bés ba jotee muy Pikine muy Géejawaay muy Géejawaay kenn waru caa des ginnaaw nu jeexalee ak toujours ak waa ECHO dafa mel ni mbër yi nga xam ni pap Pape fay Faye demoon na gisi boo doon taxawa seen combat ren ñoom ni ngi yëgluwaat ba tey gisi mel tey Khalifa Dia manageru Fass euh, Gris Bordeaux nee na daal yëfi daal si si Pape Thialis Faye la la des gis nañ tamit barke démb Ndiaye tamit waa Mbour tamit wax ne euh, loo xam ne noonu la demee. waaw loolu li ñu ci mën a wax daal ndey kumba xam naa du mën a sori li ñu ci xam daal mooy que ni déggoon nañ ne que Leewtoo mu ngi démarrer ay combat at ñi mu doon démarché nangu nañu bëri seen biir parce que Bombardier moom ne na pare na ngir bëri ak Gris waa Fass it ne nañ pare noonu Tapha Tine noonu Siteu Papa Sow noonu bu ñu demee bañ na kon léegi si côté promoteur bi la taxawee promoteur bi nag ngir wax ci lan moo tax moom loolu dem ba benn moment mu tàkk daa xajul saison bi wala euh, euh, wala côté moyen la wala lu parce que loo gis rek olof ne na am na lu tax kon nag li am solo daal te am solo mooy euh, Pape Thialis Faye ñu ngi koy ñaanal combat nga xam ne dig na ko Sénégalais yi te ñu ko doon xaar yàlla na ko yàlla dimbali ba mën ko taxawal parce que tamit am na solo. ok Babacar ñu jógee ECHO si euh, Leewtoo point net foofu ni ñuy xamal ne Modou daal la ñuy xaar daal pour mu mun a yëkkatiwaat drapeau ak énergie ndax seen défaite di moom ren moom bëri na trop. waaw loolu day moom bu amee maanaam ah, yaakaar naa ne dina gën ci seen écrit ndax li tax mooy actuellement nii boo xoolee euh, Modou bu daano mois de janvier laay Pythagore daanu bëri ki démb ah day loolu day xaw a metti ci écrit kon nag moo du amaat na bés boo xam ne nii moom ci la dëgmal muy bésum ak ki nga xam ne mooy Eumeu Sène ah kon defe naa pour écrit ba yëg jógaat ci moom fi mu nekk nii ci loxoom lay tege parce que tamit c'est moom mooy tête de file bi moom la yàlla def muy mbër bu mag bi difficulté yooyu kon xëy na moom dina ci jéem a ut solution solution bi nag mooy xanaa daan Eumeu Sène waaye ndax Eumeu Sène dina ko nangu loolu mooy wax ji ndax Eumeu mu ko doon dégg mu ne ku ma dóor yet bi di ma ko abal ma fayu te daa mel ni joxaat nañ ko yet bi ndax dina fayu wala dañuy xëccoo yet ba mu dam nañu yoon yónni yàgg ñu dem ñu des toujours si Leewtoo point net nit ñi euh, mooy coow bu am diggante combat bi am bëgg dem dem lañ ko taxawal au niveau de CNG mur rek ak gride mais dafa mel bi ci coow bi euh, coow amaan na foofu noonu diggante waa kër rok rëg rëg ak Luc Nicolas Luc Nicolas nee na dina dindi si cachet wu rëg rek euh, montant wu 10 million parce que nee na rëg rek respecté wul contrat bi nga xam ni moom la signé ak moom maanaam waru woon bëre lu simple dafa waroon rek toog di ko xaar bu mu programme lutte avec frappe waa kër rek nee na loolu euh, Luc daal day def bës daal day day def bës daal. <laughs> ah bu dee bës de xam naa ne tamit mooy loolu mais léeg am solo daal mooy ci li ma xam man. mooy que ni combat bu fekkente ne dañ ko taxawal maanaam dog njëkk comme ni ñu ko mën a waxee bëgg naa combat Babacar ak Talla promoteur Ndeye Kumba ñëw na am na lu mu jox Talla am na lu mu jox Babacar ku ne dem mën nañ ko signer hors CNG ñu xam ne lool taxaw na ci ay kayit ak yooyu. mais nag bu keroogee ci li ma xalaat mooy wala li ma jàpp mooy que ni mbër mi est ce war na ko a traiter dem bëri ji lit yaakaaruma ko mais bu fekkente nag combat ba dem na au niveau du CNC ba ñu régulariser parce que bu ñu régulariser dañuy téye licence su mbër bi mbër bi bu ñu téye sa licence nag dootoo mën a bëri lutte simple parce que fooy dem licence nga fay présenter pour nga mën a bëri bu fekkente ne nag loola am na moom bu keroogee mbër mi su bëree lu ñu ko teg Euh, maanaam promoteur ba sax a cay wax CNG moo ciy njëkk a waxal boppam parce que moom moo yore règle yi quant à loo xam ne ñoo ko seq ci seen biir lu ñu xamul ñun loola tamit duñ xëy na la tax lig wax li mu wax loola xëy na ñoom dañ koo seq suuf loolu mënuñu caa sori waaye tamit stafu Reug Reug ci li ñu jàng ci ni kon ay wax la yoo ni kii moo am dëgg wala kële moo am dëgg waaye fi ñu xam fa tey comme combat bi démb régularisé nañ ko CNG li leer ba leer moom nday kumba Reug Reug su bëree tey lit simple bu keroogee CNG mooy dal ci koom ndax actuellement licence am dañ koy téye waaw Babacar nu jeexalee ak nouvelle bu tiis dem euh, papa euh, euh, ko borom dem foofu si Yoff Layeen acteur askanu lamb yëpp ni nga fa woon Leewtoo sax ni nga fa woon yow ak Talla yaa leen fa nekkoon. waaw loolu moom dafa nekk loo xam ne lu tiis la dal ci lamb encore une fois ñuy jaalewaat Baye ma ñoon ak ay mbokkam yëpp ak tamit sénégalais yëpp waaye rawatina waa ahlu Layeen parce que démb boo ñëwee foofu nga xam ne moom moo doon Yoff Layeen bi ñuy denc góor gi Ablaye Diouf Fall di nga xam ne liggéeyal yàlla rek moo wóor te mbaax rek moo am solo parce que pour mbooloo ma fa daje bëri trop maanaam Sénégal mën nga ne parce que waa ahlu Mbàkke sax gis nañ leen fa ak képp képp ku mu mën a doon ak moo xam Tijaan yaag ku mu mën a doon Sénégal yëpp fa daje dem ñu ñaanal ko dénk jébal ko boromam kilifaam itam wala ay kilifaam ña nga xam ne ñoom la nekkaloon muy waa ahlul laayeen seeral ko seere bu rafet kon loolu moo lay wan nekk ay ndey kumba baax rek moo am solo daal encore une fois di ko di ko ñaanalaat yàlla na ko yàlla yërëm jégal ko mu bépp jullit bu mu fekk ci suuf wala nga fekk ko ci suuf parce que loolu rek moo fi nekk kullu nafsin saayxatin mawtin jooju yàlla di wax du mas a dañ fa kullu man alayha faan ya tamit du mas a dañ kon daal yàlla na yàlla def buy ñëw mu yéex te fekk ñu ci lu baax daal waaw mais vraiment daal tiis la ku fi ku gane daal bés dina jot nga dem sa yoon parce que comme gane lañ wax dëkkoo fa loolu moo am solo. amin Babacar di ñaanal euh, sunu papa boobu suuf sedd si kawam si kàddu yooyu la ñuy tàggoog yéen di leen dox dig daje suba incha allah si profito si occasion bi di nuyu sama yaay euh, mère Sow mi nga xam ne ngi si yoonu Mauritanie bi di ko nuyu di nuyu euh, sama nuyu di nuyu sama cousine Diobé Astandine Khadija Diallo depuis Parcelles Assainies di nuyu aussi Dadi Guèye na ko maa ngi koy nuyu namm naa ko. <laughs> Dadi ñu ngi koy ziar bu baax a baax ah. di nuyu mère Sow di ko ñaanal yàlla voyage bi yàlla na dem jàmm ñëw si jàmm di nuyu waa Mauritanie ah, di nuyu di ci profito di nuyu sama benn soppe bu nekk foofu ñu koy wax Asi Diagne soxna Asi Diagne di supporteru Modou Lo maa ngi koy nuyu bu baax a baax depuis Mauritanie mais di nuyu ñuy suivre ah, di nuyu tamit sama Tanzanie la yaakaar naa di fa football championnat d'Afrique yàlla nañ ko gagné tey seen match ak Guinée la yàlla nañu gagné coupe d'Afrique bi ma leen di nuyu Saliou Ciss daal maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu tamit sa papa Demba Ciss mais di nuyu ki nga xam ne nii mooy soxna soxna Anna Cheikh Bintou ak Khady ak ki nga xam ne nag mooy tuuti yaay Sarr du ma ko mos a fàtte di ko ñaanal jàmm di nuyu waa Sénégal yëpp di wax ne que Benzema depuis Algérie maa ngi koy nuyu ak ñoom Ndongo Fall Italie xam nga fàttewuñu kenn di wax ne que nag ndeysaan jangi ak yaay suba la le 17 le 19 avril waa jangi murid yi am ak yaay mu ci profité di nuyu waa ak yaay yëpp sama mbokk ak yaay waa waa Bawol yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di wax ne Ndeye Kumba Fall xol bu sedd